أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطيب بنظرة تأتي لنا بالظفر
saaru ngunu ya makkiyatun kojog makka la saaru ngunu yi mu ne kojog makka la mu ngi wàcc ci makka isnaani ñaar la wa ishruun ak ñaar fukk ayatan ciy laaya bismillahi sos na ma wax sama ci tudd turu buur arrahmaani ka day aji xéewal mbindaafoon yëpp ci addunia arrahimi kay aji xéewal jullit daal ci àllaaxira wasamaa'i géñe na ma asamaa zaatil buruji kay borom ngunu ya ñu ne mooy ngunuy fukki biddiw yeeg ñaar yi nga xam ne tuddoon nañ ko ca la jiitu ca saaru furqaan wal yow mi ak bés wala wal yow mi ak dikk ak bés almawuudi ba di buñ doxal te mooy bés pëncam yàlla wa shahidin ak aji seede wa mashhudin ak kuñ seede qutila rayeef na asxaabul uxduudi waram waram kàmb ya ñu ne wal yow mi almawuudi mooy pëncam yàlla wa shahidin mooy bésab ajjuma wa mashhudin mooy bésab arafa bés yi noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee ñu toxal ko jëlee ko ci ibnu abbas ibnu abbas wax ne yonent bi wax na ne yowmul mawud mooy yowmul qiyaama shahid mooy yowmul jumaa mashhud mooy yowmu arafa lim doon géñ mooy lan qutila rabbeef na asxaabul uxduudi waram kàmbaya am naari safara zaatil waquudi wa di borom ak tàkk-tàkkal idhum baa ñoom qu'udun way jëkki lañu alayha ca buntu kàmbi safara yooyule wahum te ñoom ala ala maa yafaluuna ca la def na jëf ko bil muminina ci jullit ñi shuhudun way teewe lañ ko ñu nga nekk foofa nag la ñuy def ci jullit ñi ñépp ñoom ñu ngi ko teewe solo dañ jëlee ci su suhudun way teewe lañ ko ñu nga nekk foofa nag la ñuy def ci jullit ñi ñépp ñoom ñu ngi ko teewe solo dañ jëlee ci Suhayb mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dafa amoon benn buur bu nekkoon ci najraan wax nañ ne asxaabul uxdud yi sax ñett lañ boobu nekkoon ci najraan ci yaman ak beneen boo xam ne bii mu ngi nekk ci Shaam ak beneen boo xam ne mu ngi nekk ci Faris waaye bi ñu ci suñ borom nettali mooy bi nekk ci najraan dafa am buur boo xam ne bii mu nga fa nekkoon am buxaaba buxaaba bi moo koy waxal ay xew-xewam jëmmi jamono nag mu dem ba yëg ci boppam màggat mu ne buxaaba bi mankat léegi yëg naa ci sama bopp ak màggat dama bëgg nga yebalal ma xale boo xam ne xam-xami buxaaba bii ma xam danaa ko ko jàngal mu yebalal ko benn xale ñu ne xale bi mu ngi tudd Abdoulaye Taamir waxtu wu xëyee buur bi xëyee yebal ko mu dem ci kaahin bi waaye nag benn buxaa benn benn labbe ngi woon ci yoon wi waxtu boo xamee ne bii mu ngi dem dana jàdd ci labbe bi labbe bi jàngal ko def ci linjiil ñu ne loolu xew na lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di juddu juróom-ñaar fukki at bu demee jaar ci labbe bi labbe bi jàngal ko lëf ci diine mu continuer dem ca kaahin ba buxaaba ba mu jàngal ko lëf ci njabar mu gis nag ne li muy jëlee ci labbe bi daal moo gën a dugg ci xolam bu demee bu guddee bu ñëwee ci labbe bi labbe bi ne ko lu tax nga guddee mu ne ko dara labbe bi dóor ko bu ñibbee itam seen kër ba buur benn njabootam laaj ko mu ne leen dara ñu dóor ko jëmmi bés nag mu dem ci làbbe bi mu ñettali ko loolu ne ko man day waxtu wu ma ñëwee ci yow ba yàgg fi bu ma demee ñaare kaahin bi de dama dóor bokaaba bi te bu ma ñibbee suñ kër itam suñ kër dana ma dóor mu ne boo dematee seen kër buñ la waxatee lu la guddeel na nga leen wax ne rek ci bokaaba bi laa nekkoon bu ko defee duñ la dóor boo ñëwee ci làbbe bi itam buñ la laajee foo nekkoon na nga wax ne suñ kër laa nekkoon ndax nga mucc ci dóor yi xale bi nekk ci loolu ba jëmmi jamono am mbindeef moo xam ne mu raglu la moo xam ne ci seen mbit mbedd dëkk mu ngi gaarlu ci kanam nit ñi nit ñi mënuñoo dem mënuñoo ñëw xale bi nag ne danaa seet ndax li ma nekk diggante làbbe bi ak buxaaba bi ku ci nekk ci dëgg danaa jël aw xeer ne yàlla bu fekkee ni kii li buxaaba bi nekk mooy dëgg sama sàmm wi yàlla nañ ci rey jëmm ji sànni jëmm ja dara jotu ko mu jël weneen saan ne yow suma borom bu fekkee ni kii li làbbe bi nekk mooy dëgg fi yow sama saan wi yàlla nañ ci rey jëmm ji sànni jëmm ja dee nit ñi bëggoon a dem dem ñi bëggoon a ñëw ñëw mu dem nag ci làbbe bi nettali ko xew-xew bi làbbe bi ne ko yow kat am na maqaama moo yéeg moo gën a kowe sax sama maqaama da nga am nag nattu waaye dama lay ñaan nattu boobu waxtu wu ñëwee ci yow bañ di la fitnaal bul ma tudd mu ne ko baax na du ma la tudd mu dem nag yàlla may ko karaama muy saafara ñi ni Isa doon def ñi amee basa barasak ñi amee kuleeg ñi gumboot ñépp mu di leen saafara bañ dégg ne jaraaf ji nga xam ne ji moo nekk ak buur bi gumba daf koo dal mu dégg mbiram xale bi mu dem ci xale bi ne ko dama bëgg nga saafara mu ne ko man mënumaa saafara yàlla suñ borom di sama borom di sa borom mooy ki mën a saafara bu fekkee gëm nga ko ma ñaanal la ci moom yàlla dindil la gumba gi nekk ci yow mu ne ko gëm naa ko mu ñaanal ko bët ya xool mu dem ci buur bi dem toog buur bi ne ko ah yow de man dama la xamoon nga gumba mu ne ko waaw mu ne ko du delloo ci sa bët yi mu suturaal xale bi bañ koo lëb mu ne ko nag faw nga wax ma sa bët yi lu ko delloo si mu wax ko ne ko benn gone goo xam ne fii daal gu fi nekk bu yàlla barkeel la mu ne ko yàlla man mu ne ko yow dangaa gëm yàlla mu ne ko waaw mu taxawal ko ne ko da nga dellu si ci jaamu xiram giñ nekkoon wala danaa la xar ñaar ak si xëbal ko mu bañ moom jaraaf mu mbugal ko mbugal mu métti mu wax ko ne ko gone gi moo ma saafara ba mu bëggee nag mu weddi mu bañ mu jël si bi teg ko ci digg boppam bi di ko xar ba def ko ñaari mos mu mu oo gone gi ne ko yow lii nga nekk ku la ko jàngal mu bañ ko ko wax mu buggal ko mbugal mu métti mu ne ko làbbe bi ci barab sàngam moo ma ko jàngal fekk làbbe bi waxoon na ko ne ko bu ma tudd ñu oo làbbe ba mu ñëw ñu bëgg koo yéefarloo mu bañ moom it ñu xar ko ñaar mu des gone gi mu ne gone gi nag dama bëgg ngeen yóbbu ko ba ci njollox toñ doj wi gën a kowe ndax buggutoon mu dee ngeen ko ngeen xëbal ko bu nangoo dellu si ñëw ci suñ diine na ngeen ko bàyyi bu fekkee nanguwut a dellu si ngeen daanee ko foofa mu dee ñu yéeg a gone gi ba ci kon joloxtoonu doj bi ñu bëgg ko sànni gone gi ñaan boromam ne ko yow suma borom yàlla nga ma fegal xaylu ñu ñooñu ñépp daanu ca kaw ñoom faf dee gone gi wàcc ci dellu si ci buur bi mu ne ko ah ana ñu ma la booleetoon mu ne ko dee nañ mu oo beneen mbooloo ne leen na ngeen ko jatank dugal ko ci gaal ngeen dem ak moom ci biir géej gi bu ngeen demee ba àgg ci digg géej gi ba àgg ci xóot-xóoti géej gi fekk xeew ngeen ko ngeen sànni ko ci biir géej gi ñu dem ba ca digg géej ga gone gi ñaar gaal gi toj ñi àndoon ak moom lab mun yàlla tagal ko ci aw xarit ca kaw gaal ga ba mu dellu si ñu dellu see ci tefes gi ñu xeewi ko mu dellu si ci buur dellu si ci buur buur bi ne ko waaw ana ñi ma la boolee toon mu ne ko ñoom ñëpp lam na mu ne ko léegi boo ma bëggee rey da ngay oote mbooloo dëkk bi yépp ñu teew nga salab ma jël sama fett gi boo jëlee suma fett gi ne maa ngi ñaan ci yàlla mi nga xam ne mooy borom gone gi sama fett gi yàlla na rey gone gi mu def loolu salab ko dajale àddina bi yépp ne maa ngi ñaan ci yàlla mi nga xam ne mooy borom gone gi ne fett gi yàlla na rey gone gi fett rek mu dal ci kar noppali mu dal di dee mu jël loxo li teg ci ñu jël yóbbu dem suul ñi nga ña fa nekkoon ñépp nag dal di gëm ne ñun ñépp gëm nañ yàllay gone gi mu ne leen nag yéen ñépp bon danaa leen rey dajale ñu gëm ca saasa ñépp dal di gaslu ay kàmb taal ay safara kuñ indi ba ci buntu kàmb gi ndax da nga weddi yàllay gone gi te gëm suñ xewen yi boo ne déedéet rek ñu sànni ci biir safara si ba ci benn jotaay buñ toog rey nañ ca juróom-ñaar fukk wala ñu ne juróom-ñaar téeméer fukki nit ak benn ñoo nangoo murta pour musal seeni bakkan indi nañ benn jigéen fekk mu ngi boot doomam jigéen bi dem bay bëgg a deng dengi doom ji ci gannaaw feru feru de mën a gut a sax wax ne ko yaay dëxëral rek li nga nekk mooy dëgg ñu jël ko moog doom ji sànni ci kam loolu mooy solo yi asxaabul uxdud iwum way bañoon qu'uudun way jëkki lañu alayha ca kaw kam bunti kàmb yooye wahum te ñoom shuhudun way seede lañu ala ma yafaluuna ca la danañu def ko bil muminina ci way gëm ña wa ma naqamu fayuhum minhum ci ñoom illaa an yuminu ndare ak gëm seen billahi ci yàlla al aziz yi ka di aji tedd ci nguuram alxaki alxamid yi ka di kuñ sant ciy jëfam dara taxut ñu buggal leen lu may gëm gëñ gëmoon yàlla ladi yàlla mi nga xam ne lahu aji nekk la ñeel ko mulku samawaati nguur ak asamaani juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar wallahu yàlla shahidun aji seede la mu ala kulli cheyin ci lépp lëf inna alladina naka ñaaña nga xam ne fatanu fitnaal nañ nattu nañu almuminina way gëm ña wal muminaati ak way gëm ñu jigéen ñi ci lakk su malam yatuubu topp tuubuñu fa lahum war na ci ñoom adaabu jahannama mbugalam jahannama wa lahum war na ci ñoom adaabul xariqi mbugalam lakk inna alladina naka ñaaña nga xam ne amanu gëm nañu wa amilu tañ jëf saalihaati farata ak naafile lahum war na ci ñoom jannaatu ni tool tajri yooyu dana daw min ta min taxtiha ci ron seen al anhaaru yal yi ñeen zalika loolu huwa moom alfawzu moom a dig texe alkabi zalika loolu alfawzu moom a dig texe alkabiru ga di aji màgg màgg inna batsa rabbika nakat ki ak borom sa la shadidun aji dëhër lam aji métti lam innahu naka moom huwa huwa moom yubdi u dana mu sos bind ak bindeef wa yuiidu te dana mu baamu ak bind seen ci waxtu dekki seen wa huwa moom alxafuuru moom a di jéggale yaa kon ñeel way bakkaan bi alwaduudu moom a di aji soppu jëm ci ay way méngoom mooy mooy waliyoom yi te dana leen teralee karaamaan yi zul arshi mooy borom aras moo ko bind moo ko moom almajiidu ba di aji tedd faalun defaa kon la mu limaa yuriitu ñeer ca la mu namm hal ataaka ndax dikkalu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisul junuudi solo si leel ya firawna firawna wa samuuda ak samuuda ña bal bahit alladina ñaaña nga xam ne kafaru weddi nañu fii takribin aji nekk lañ ci narroo wallahu yàlla muxiitun aji léem la mu leen min waraihim ca gannaaw seen te yàllaa ngi leen léem amul kenn koo xam ne mën na leen a musal ci yàlla bal bahit huwa moom lii di jàng muhammad quraanun alquran la majidun jude aji màgg majidun jude aji tedd fii lawxin ci àlluwa mahfuusun jadi juñ judi juñ wattu te mooy lawin mahfuus te yàlla wattu na ko ci mboolem saytaane yi ak soppi ak lépp loo xam ne lii daal dana tabbi ci alquran leneen lu duut alquran
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ولينا على آخره monsieur la ñuy faral yal nañu yàlla may leen yoon bi monsieur la ñuy njuumte yal nañu yàlla baal te xamal ñu ko yàlla xam ne ca dëgg dëgg yàlla ñu ko xamal te defal te defal ñu ci barke ci alquran yàlla ji ak ci ko wàcce ci moom ak li tax ñu wàcce ko ci barke bi leen islam yàlla na yàlla defal jàpp ci réew mi yàlla na yàlla defal jàpp ci dëkk bi yàlla na yàlla defal jàpp ci mboolem réew yi nit ñi def ñu ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali ni ñu ngi nekk ci weeru koor kenn wàccul ci weeru koor kenn wàccul ci weeru ñaar nañ jublu ci yàlla ci ak suñuy xol te tàllal ko suñuy loxo ñaar yàlla defal ñu suñu bëri bëri te ñu wàllam fitna yi te ñu wàllam balaa yi yàlla defal loolu